diine leen boole. nee na diine moo ñu boole. Adama ak Adama ak maam Hawa moo ñu boole. mbokk nag lu mu yaatu yaatu. na mbokk nag lu mu yaatu yaatu. kërit lu mu yaatu yaatu wala lu mu xat-xat. du tax ñëpp bokk fanaan ci benn néeg. waaye ëtt bi ñëpp mën nañ ko bokk yendu ci. muy diine muy diine lislaam di ëtt bi. mooy ëtt bi. néeg yi nag. nee néeg yi nag. mooy tànneef yi nga xam ni. mooy tànneef yi nga xam ni. moom la wolof di wax ni. moom la wolof di wax ni. kuy yuuxu. kuy yuuxu. fa nga yaakaare wallu. fa ngay jubale sa gémmiñ. fa kër nee na kër maam Serigne Touba radiyallahu anhu. Laayeen. Laayeen. Njaasaan. Tiwaawan. mënuñu ñàkk. nee na mënuñu ñàkk. ñii amee nekk fii. ñii nekk ñii nekk feneen fa ci des. waaye ñëpp njaboot lañu. nee na ñëpp njaboot lañu. kër goo ci dugg. na kër goo ci dugg. su fekkee ni la war a am am na. su fekkee ni la war a am am na. dañ lay daal di taf ci njaboot gi. nga bokk ci. ndax ka yaakaar. nee ndax ka nga yaakaar. bu ngeen àndoon dugg fii. dugg fii. mu fekk si ay bokkam. mu dana wax ak ñoom wax ak ay mbokkam loo fekkewul. fokk mu lëngoo dugg ci néeg. mu lëngoo rek dugg ci néeg. nga xaar ci biti. waaye nee na balaa génn. ña nga bokkal biti ba. nga bokkal biti ba. waxtaanal ak ñoom yewit nee na su ko defee. kilifa di wax nee na la kilifa gi di wax. mu ump la. mu ump ngeen wax ci biti lu yéen tamit lu ko ump. muy rafetal seen mbokk. nee na fa tabaarakallahu may ci profité na mu ciy profité nag. di nuyu. di sant. di di gërëm. di gërëm. Serigne Saliou. Serigne Saliou. bu Serigne Baara. bu Baara. di di ko sant bu baax. gis nee na gis na wax ji mu wax jëmale ko ci moom mii. su na su fekkee maa nga fa. la la mu wax. la mu fekkee mi ngi ci man. bu moom. yal na ko yàlla saxal. bu fa nekkul bu fa nekkul. yàlla na ko yàlla suturaal. nee na tabaarakallaahu sëriñ Saliou ibnu Alaaji Bara ku baax la. nee na wax ju baax la wax. nee moo firi lii mu leen wax nii. nee na fu ngeen mën a nekk. nekkal murid. nekkal murid. bañal nekk dara. waaye nekkal jullit. te nite. loolu rekk moo am solo.